ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay tey ñaan sunu boroom sunu kàddu gi mboolem ku koy dégg ak foo ko mën a déggee mu fekk la ci jàmm fa nga nekk bàyyi la ci jàmm defal la jàmm bi jaayi saydul wujud tey soññ mbokki réew mépp ak mbokku àdduna yi ñu bàyyi xel bu baax ci jamono ji rawatina ci balaa bi nga xamante ni wàcc na ci àddina te laal sunum réew muy tawati coronavirus bi nuy wax te ñun ñi nga xamante ni ay jullit lan rawatina sama mbokk taalibe yi ma sañ a digal ma wax leen nañ ci jiital ak tawasul tuubal yàlla sunu borom ndax baraana luy xew ci àddina te fekk merum yàllaa ko indi loole mën nañ cee jox ay misaal yu bari ci jamono yonent ya jamono yonent yàlla noox ku ne xam na ne suñ boroom wàcce woon na fi tawatu ràmm mu doon doonoon épidémie bu metti ba ci ay jamono yonent yu bari te lu ci nekk rek merum yàlla suñ boroom a ko indi ba ci jamono yi sëriñ bu mag bi sun suñ boroom wàcce woon na fi épidémie yu peste boobu jële fi ñu bari te lépp dara waralu koon lu may jëye ji nga xamante ne doomu aadama yi ñu ngi koy def ci kaw suuf ndax bun xoolee asamaan ji nga xamante ne doomu aadama jotewu fa kenn mësu faa dégg koñ bu rës waaye suuf si nga xamante ne doomu aadama yee fi nekk nag te ñeme yàlla lool yàpp ko lool bis bu set ñu dëkk ci di ko tooñ mujj gi mu ñu dem ba daanaka da mel na ñu di ko ñaawal jéye ju am fii lañ ko gis waaye asamaan ji joom laa damay jotul kenn mosu faa dégg dara luy nuru jëye kon nag ñu ngi soññ mbokk taalibe ñu jiital ci loolu bu loolu weesoo ñu gën a tënkuwaat ci lislaam ndax lislaam dafa set fii mu ne exemple yi ñuy joxe yépp muy ndigal yi ñuy joxe ci défendre coronavirus bi ay ndigal la yoo xamante ne lu suñ boroom joxe la suñ boroom daf na ko jox ñu dëgër bopp daal di gànt daal di lànk bañ koo def mu yebal fi ab jaamam buñ naan coronavirus mënu koy defloo par force sañu nu koo bañ ndax raxasu gii yàlla ñu ko njëkk digal ndax li jiitu ci faratay lislaam di salawaatul xams amu ci benn boo xamante ne mën nga koo def te doo doo yóbbaale ak cet muy njàpp danga raxas say loxo raxas sa gimmiñ raxas sa bakkan raxas sa xar kanam raxas say say say say say say loxo itam ba mu set raxas sa bopp raxas sa nopp raxas say say tànk loolu nag dara gënu koo seet ci cëru doomu aadama lii nga xamante nii ñu ngi koy takk tey ci masque yi bu nu seetloo ci lislaam li suñ borom digal jigéen ñi ngir ñu di ko def loole moo ci jiitu woon ndax lii nga xamante nii ñu ngi koy wax ijaab ñii naan ko burxa ci genn fànn képp ku koy def rek danga mucc ci coronavirus ndax virus bi du la dugg doo ko doo ko nooy ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag ñu ngi lancé sunu message ci mbokku taalibe yi gën a góorgóorluwaat ci ak cet góorgóorluwaat ci lislaam te xam ne lislaam diine la te diine mënee su ko jëfee li fekk jàngoo ko yàlla sunu borom mbooleem lum nu digal sunu njariñ njariña ci nekk mbooleem lum nu aaye sunu loraange ci nekk kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te fonk te respecte directive yi nga xamante ni état bi jël nañ ko jaarale ko ci seen institution moo xam ci ministère de l'intérieur wala ministère de la santé mbaa kum ci mën a doon kilifa diine yi itam taxawaay bi ci taxawee noonu rek lan war a def te loolu rek moo leen war muy taxawaay bu sell boo xamante ne danañ yëkkati seen alal def ci ngir dimbalee ko mbokku julli di yëkkati seen ndigal joxe ngir dimbalee ko mbokku julli di ak mbokku taalibe